am na solo lool bu ñëwee ci discours yi nga xam ne am na fa oustaz ma euh, dellu si ci bi nga xamante ne dana soxal yi nga xamante ne xalif bi yeesalaat na ko. Mhm. ndax euh, ci atum 1980. Mhm. ci la Serigne Abdoul Ahad euh, waxoon ca dëkk ba yi nga xam ne dañ ko fay bañ yépp mhm. Serigne Mountakha amaat yum ci tudd yoo xamante ne yeesal na ko. muy yaatu nag yoo xamante ne mën naa jàngat lool oustaz loolu ban xalaat nga ci am. def na ca benn discours bu am solo. boo xam ne bii mu ngi tudd taalimaatun wa yeesalaat tere yi nga xam ne hmm. sëñ ab laxat daf ko tere woon foofu hmm. suñ Mbàkke hmm. département bi ci Touba ñu ko wax Mbàkke bi suñ Abdou Lahad di toog ci xilaafa gi fu ñu mës a génnee prix département bi dàqa naan sàngara ci Sénégal Mbàkke koy jël seetal loolu fi mu ne waaw département bi dàq consommer sàngara ci Sénégal. Hmm. mbakke moo ko daan jël. Eh, seetal loolu rek. <laughs> Ah, affaire bu garaw waaw waaw. suñu abdoulaye moo ko fa jële hmm. bu fi nekk nii dox ca Mbàkke gis fa baar. Hmm. mbaa bistro. wallaay wallaay. boo koy def da koy nëbbu. waxuma Touba waxuma laa Touba nag. <laughs> bi nag daal di indi yeesalaat yooyu. taati shay'in min sa'iri mashrubat hmm. ah almu al alkoholiya hmm. lepp lo xamne sangara la wala mu jégué ko hmm. la nek bir tuba ak lako wër neuf jog lolu ben bu ñaaral ba carte ak xéti carte yépp bi jami' anwa'i xéti carte yépp nak ndax carte gu dagan amut mo xam gu yàgg la mo xam gu jégué lolu ñaar bu ñettal ba atadkhin tux xam nga hmm. mbàkke ki tere tux bañ bàyyi tux jër muy tere hmm. tux yàmba hmm. waaw ki bañ bàyyi tux jër muy tere tux yàmba ndax ku ku ku dul tux cigarette dul tux yàmba yaakaaruma ko bokk dëgg la <laughs> la ca tege muy ñeenteel bi lépp lu jëm ci folklore yi pecc mi sabar yi ndagar walla yi yooyu yëpp ñu teg ci suuf ba ca tege mooy mépp po moo xam ne day yóbbu nit ci mu dugg ci lu ñuy tere lu mel ni làmb ja waaw lu mel ni match ba yu ni demee ñu bàyyi ko foofu ba ca tege mooy yi nuy tere lu mel ni jigéen ñi def boppi neen wala jokk seen kawar yi wala soppi seen der yi wala jaay jumtukaay yooyee mhm. ñu tere ko foofee mhm. ba ca tege mhm. mooy xale yu góor yi col yi ñuy sol jiin yu foq wala mu ruggeeku yooyu mu tere ko fa wala takk fanweeri lam ñetti ci góor <laughs> wala takki jaaru ca nopp ya mu teg ci beneen hmm. mooy xeeti njabar geeg jabarkat yi hmm. Hmm. mën naa faj nangam mën naa faj nangam mën naa gis nangam petaaw yi ñoom yooyu mooy na jóg. loolu ci yem ci dara la bokk. Mhm. Euh, ba ca teg mooy fatu bandi. Hmm. ab bandi. am sa kër fat ci ay bandi. luy loolu. waaw. <laughs> iwaawu ahlil fisqi. Hmm. wal fujuur. Hmm. Mhm. nun waaw. ca man la bul. man la bul faw seyni loolu dañ ko fay tere kon moo tax kon soo fa gisee ko xam ne ki xam nga ne kii jagut boo ko fatee tooñ nga sëñ bi waaw te kuñ fatut da nga wuti fu ñu la fate doo fa am place doo fa am place dëgg la dégg ba ca tege mooy yëkkati sa kaddu ci turu tarixa bi te amoo ci ndigal mm-hmm. te amoo ci ndigal yooyu yëpp dañ koy tere waaw te yëpp lañ koy tere tere yi bari naa bari na lool parce que nag maanaam boo demee ci man loolu fa sëy waaw tere yëpp mu nga fa est-ce bi ci mujj hmm. ñàkk ommatu ci njàngaleem diine hmm. xanaa bëgg a demal sa bopp ci say xalaati bopp hmm. moom it dañ ko fay tere est-ce que yii daal suñ bàkkee lenn la ci ay tere yoo xam ne suñu ab laat junjoon na ko a Cheikh mu mun mun taxa daal di koy yeesalaat jokkaat ko ca def ko ca discours am boobee. macha allah joxoñ na ko ñun ñëpp it. lu hmm. war fexe ba. Hmm. doon ñaanug sëñ dëgg la torkal la lu am solo la Oustaz. Hmm. lu am solo la doon ñaanug siñ bi Cheikh Abdou Lahad indi woon na ko. waaw waaye Oustaz damay wax ne kon bu ko Cheikh Mouhamadul Mountakha indiwaatee jamono ji mu ko indee nii gën nañ ko fee soxla. waaw waaye man li ma ci jaaxal mooy bu fekkee eh, yu baree bari tomb yu bari. Eh, rawatina lu jëm ci wàllu xeesal. wala lu jëm ci wàllu mees wala lu jëm ci wàllu jigéen joo xamante ne rek melokaanam dëppoowut ak ni jigéenu lislaam war a mel maanaam léeg-léeg boo ko doon xool tey danga naan maanaam kilifa yi kilifa gu baree bari am na ku ne ci wetam benn muy soxnaam wala muy doomam wala muy njabootam gu ko jege goo xamante ne moom muccagut ci loolu ba noppi ñu bëgg nag génnee loolu ci biti loolu itam waaw lu xew dafa am benn discours bu muy faral di wax moom Cheikh Mountakha hmm. nañ dimbale sëriñ bi suñu bopp hmm. <laughs> waaw mhm. in tansurullah lu mu ci teg yansurukum yansurkum mhm. wa yusabbit aqdaamukum waaw góor mhm. dimbile sa bopp ci sëriñ bi mooy comme man njabootu sëriñ bi laa su ma defee lu wuuteeg li sëriñ bi di woote dimbalewu ma ko dimbalewu ma sama bopp dimbali mënu koy kilifa doon yoon wi loolu nag nit da ci war bàyyi xel nga xam ne moom buñ ko waxee buñ ko waxut war naa yëg ne loolu du dimbalu sëñ bi waaw kon wa maskani salli minal fujaar yi nu noor a góorgóorlu ba du nekk ay fujaar dëgg la dëgg la waaw dëgg la dëgg la ñu nekkul ay fujaar fatuñu fujaar hmm. fu dëkk ba amee fujaar macha allah am na solo de loolu rek la ak mbaax daal fu ko nit dégg te bëgg a baax moom na ko jël rek moo xam nag eh, da ngay gis ko am njaboot te njaboot ga melut na mu bëgg mu mel tegtalewul ne war a digle lu baax maa ngi fàttali ndax yombut maa ngi fàttali li Serigne Saliou di tere di di yeesal tere yi moom tam Serigne Saliou waaw ndeysaan am gone gu jigéen gu nekk ca ndar woo ma téléphone hmm. ni ma damaa dégg ñu ne sëñ bi nee na day tere boppam neen hmm. ma ne ko mbaa mbaa defoo ko <laughs> mu ne ma ah kay man ma ne ko li la gën a jege teg ko si bopp bi gaaw. ànd tànn naa yow. ñu door a lijjanti ndax day wéyam du wéy. bi ma demee ndar mu ne ma. liñ <laughs> hmm. naa càll bi ma koy wax. Hmm. damaa defoon léegi te asamaan daal sama kaw. ndeysaan est-ce que est-ce que. donc loolu am solo la. am na solo ak mbaax daal ni nga ko waxee léegi. Hmm, foo seen mu nekk fa. doxal wuti ko rek. boo àggee fayu. boo àggutit fayu. am na solo oustaz te itam tere yooyu li ci am solo mooy léeg ñu xatal ko ba jàpp ne ki koy tere ci dëkk la ko tere. waaye bu gënee yaatu mooy kilifa goo xamante ne daa toog ci toogu boo xam ne lislaam a ko fa teg mooy fàttali ab jullit boo mu war a mel melokaan wi nga xam ne moom la lislaam digle ak fu mën a nekk fu mën nekk nga xam ne lii ci woote bi yeneen saa salaam la bokkoon loolu bokk ci ay responsabilité mu fàttali ko ñëpp ña ca Italie hmm. ña ca Espagne hmm. ña ca Belgique hmm. fu waaye mën a nekk te jokk ci tarixa bii kàddu gi ñëw na ci yow boo ci bokkuti jokkuwoo ci lislaam ci nga jokk kàddu ñëw na ci yow masha Allah mi ngoog <laughs> mu jeex tàkk am na solo jërëjëf